ci ndaje bu mag bi ñu amaloon ci siège bu CNTS FC fii ci diwaanu Ndakaaru collectif bi ëmb ay agent contractuels des établissements publics de santé fii ci Sénégal fësal nañu seen i ñaxtu ci ay banderole ak i pancarte la ñuy sàkku jamono ji benn la. mai 2022 am na indemnité yu président Macky Sall joxe woon euh, établissement euh, dans le cadre de la santé. bu mu leen joxee indemnité yooyu ni ñu ko séddalee moo baaxul ndax bu ñu ko joxee moom amul woon xaaj ak seen waaye mai 2022 ba tey gaa ngi fay indemnité yi contractuel établissement public de santé gisuñu dara lu ko waral nag ministère de la santé ci boppam bu ñu joxee indemnité yi bu ñu génnee yuuxu grève ñun contractuel des EPS yi ministère de la santé dafa bind Euh, le ministre à l'époque Abdoulaye Daouda Diallo nee ko fay ngeen fonctionnaire yi waaye contractuel EPS yi jotuñu mu def recensement ci hôpitaux yëpp xam effectif bi def simulation yónnee ko le ministre Abdoulaye Daouda Diallo mu def mu génnee waxuma la budget mu génnee ko ligne de crédit mu ne ko génne naa la li nga calculé woon yëpp pour ces agents là huit milliards cent quarante millions trois cent vingt nga jox leen seen xaalis ñoom ñoo ko moom. waaye malheureusement ñëpp père de famille fi toog nekk ci hôpitaux yi di sonn di xaar xaalis bi tàcc ci commencé fecc mbette lañ ci am ndax bu ñu indee xaalis bi benn daal euh, service ci nekk ci ministère de la santé moo toog ci biram bu sedd rek def benn email nee na déedéet xaalis bi nga waxoon ñi ñoo ko moom waaye ay tuuti ndit laa ci jox mooy ñu mu leen tuddul léegi donc mu ne dañu appliqué benn décret boo xam ne dañ ko àbb sax ndax ay décret fonctionnaire la 2018 14 30 boobu sanctionnaire ko moom. te ñun ñu nekk ay contractuels am décret boo xam ni c'est pour les contractuels des EPS. boobu le président Macky Sall moo ko defoon en 2016 nee leen en son article 50 le 1er janvier 2017 appliqué leen décret bii ndax contrat de hôpitaux yi am statut ba léegi ñun amuñ statut. Mhm. boobu bu ko jëloon séddale ko ci xaalis bi. Mhm. boobu cool yi day ne ku nekk dina am xaalisam malheureusement kenn xamul luñ ci jublu dañu jël ab fonctionnaire yi seen décret boobu ñu séddale ko loolu moo waral nag ñi nga toog fii yëpp tey jóge ci hôpitaux yi di ci liggéey presque majorité bi presque quatre-vingt pour cent yi amuñu indemnité yooyu te leer nañu ñun xaalis bi génnoon na bañ ko teg ci table bi depuis mai 2022 donc ñu toog di muñ ba 2022 jeex joxuñu dara ndax boobu cinquante mille la woon 2023 ñu ñëw ñu yokk ko soixante quinze mille ñu toog ba année bii nii mu ngi waaj a jeex gisuñu dara ci lay jóg créé suñu collectif bi loolu moo ngeen gis tey hôpitaux Sénégal yëpp ñoo représenté wu fi tey collectif bi dafa jóg pour xeer injustice boobu tuy jógee di yuuxu ñu ngi xaar deux mille vingt trois vingt deux mille vingt quatre cent mille francs la jëm donc ñun lu ñu laaj dafa simple lu ñu laaj hôpital képp ku fuy liggéey nga am CDD nga am CDI. ñu jox la sa xaalis yaa moom ndax président Macky Sall moo ko joxe ndax dund bi métti na xam nañu logement yi dafa cher loolu ma taxoon mu génne ko xaalis boobu nag bu génnul ñun commencé nañ suñu plan d'action dañuy continuer di xeex xaaruñu kenn dañuy dem ba jeex comprendre nañuy jox suñu xaalis ndax xaalis bi mu ci kaw table bi génne nañ ko décaissé nañ ko dañuy laajte nag un rappel ñu ngi wax nag ay indemnité spéciale complémentaire ay indemnité de ñun xaar ñun lijjantuñu loolu on a un acquis on a décaissé de l'argent nay jox contractuels yi seen xaalis des EPS mu jeex ñoo xam nag nu ñu koy tuddee. lu ñuy revendiquer mooy euh, indemnité de logement yu le président de la République Macky Sall euh, jox pour tous les travailleurs euh, contracteurs et encore les travailleurs des EPS wala des travailleurs de de de du de la santé. le président Macky Sall dafa imposer ñu joxe une enveloppe de huit milliards pour que ñu séddoo ko nous à notre grande surprise. il s'est trouvé que quand on avait fait notre euh, négociation, laissant nos grands syndicalistes d'aller négocier ce mouvement, ils se sont revenus nous dire que au niveau des ministère de la Santé, il y avait quelqu'un qui une lettre boo xam ne lettre boobu dafa seppi contracteur des EPS de l'hôpital des, des hôpitaux ñoom kese ñoo nar a am si les huit milliards et alors que le président de la République enveloppe bu mu di dégager c'est pour tout le monde parce que bëggul am problème bëggul santé bi am problème dafa bëgg un défi national au niveau de la santé ku dem ba mu def noonu est-ce que les syndicats aujourd'hui ñuy jiite nit ñi est-ce qu'ils ont le droit d'accepter de payer les autres et laisser les autres donc loolu moo ñu pousse aujourd'hui ñu dajale tey pour que ñu revendiquer ñu feeñu suñu indemnité de logement à compter du mois de euh, mois de mai 2022 jusqu'à présent, nous, on n'a pas reçu notre indemnité de logement. Et donc, euh, le contracteur, euh, les contracteurs du Sénégal, TEI, nous voulons un, pour créer d'abord, parce que notre objectif principal, ce n'est pas l'argent là. Notre objectif, c'est être un, pour créer un syndicat autonome des contractuels des EPS du Sénégal, pour que nous dirigeons ce en, en personne. personnel contractuel des établissements publics de santé bi coono gi ñu nekkee ci biir établissement public de santé yi ségrégation bi ñuy dund ci biir euh, établissement public de santé yi ak discrimination bi nga xam ne moom la ñuy dund ci biir établissement public de santé yi ñun contractuel yi loolu moo ñu taxam moo ñu boole fii tey parce que dañoo gis ne ci biir hôpitaux yi booy seet ñun ñoo fa ëpp mën naa la jox euh, service yu nekk man fa ma xam mu muy hôpital Aristide Le Dantec mën naa la limal lu mot euh, fukki service yoo xam ne boo fa demee benn état benn état nga fay fekk wala ñaar la ca des yëpp contractuel la ñoom ñoo yor liggéey bi yëpp. ma lay ma lay liimal benn rek ci biir yooyu muy la cardiologie de l'hôpital Aristide Le Dantec kenn du bàyyi ma fenn benn étatique moo fa nekkoon moom mooy seen major la ca des ci infirmières ya yëpp boo ko dee xool gàddu liggéey bi si ba bajant soo ñëpp ay contractuel lañu te ku ne xam na ne euh, euh, euh, cardiologie bu hôpital Aristide Le nag wax dëgg yàlla ci sous région loolu loolu boo ko defee da ngay juum loolu nag tey moo jur lii tey euh, discrimination bi dafa am même au niveau des hôpitaux lépp loo xam ne dañ ko fay fay ba ci xam ne mooy motivation bi nga xam ne ñun ñoo koy liggéey nga xam ne ñun ñoo gën kon donc suñu ñàkk a tuur moo a tuuru kon ñun ñoo war a gën a ñun ñun la ñu a gën a jox parce que ñun ñoo gën a bëri mais bu boobaa buñ ko dee fay étatique yi ñoom ñooy ëppale ñi nga xam ne ñoom ñooy contractuels te loolu ci recette hôpital bi lañ koy fay loolu je pense que c' est pas normal te loolu les directeurs d' hôpitaux waruñu ko seetaan état aussi war na am droit de regard si hôpitaux yi xool li xew au niveau des directions mu teg fa ay mu teg audit teg fa teg fa contrôle parce que dafa am yoo xam ne jaaduwul moom it li muy fay muy les motivations nationales dafay ñëw ñu fay leen ñoom le personnel ñu personnel dinañ leen fay 3 mois ñun ñu soog a fay suñu bos. bi gën a bon nag bi ñu tax boole fii tey ji mooy nag indemnité yi nga xam ne yàggan nañu di ko di ko di ko jooy ba mu agsi ñu daal ne euh, wax dëgg yàlla sant yàlla président Macky Sall mooy ki nga xam ne moom moo ñu ko nangul defal ñu ko mu ñëw def ko ñu daal di génne euh, euh, paiement bi ñu toog di xaar ñu daal ne personnel étatique bi kese moo ci am droit ñun amuñu ci droit waaw ba tax ñu fay leen ñoom bi ñu leen fayee ñu ngi leen fay depuis 2022 ba tey jii ñun ñu ngi toog gisaguñu suñu suñu suñu suñu suñu wàll. dafa am problème bu am xew Sénégal depuis mois de mai 2022 Euh, le gouvernement di Sénégal dafa jëloon euh, ndàmpaay yu ñu buggoon jox euh, le personnel de la santé ndampaay boobu mu ngi tolloo woon ay huit milliards ak lu teg léegi gouvernement bi jël xaalis bi débloqué ko jox ko ministère de la santé depuis mu jox ko ministère de la santé ministère de la santé nangu ñoo jox xaalis bi boo janvier deux mille vingt trois janvier deux mille vingt trois bu tamit ba léegi ñun jotuñu xaalis bi. xamuñu xaalis bi fan la dugg te ñun te ñun dañoo bokk si ñi war a am prime de logement bi donc loolu moo ñu jaaxal parce que lu ñu nekk di def kenn rek moo ñu lor mooy ki tudd mbay Mbaye Sylla mu ngi nekk ci biir ministère bi directeur euh, général de la santé la moom moo génnee benn mail mu ne nañ ñu bolo nañ ñu génnee te si biir euh, protocole d'accord bi gisuñu ko foofu parce que dañoo woowoon euh, directeur yi nekk ci établissement public de santé yi ñu laaj leen liste tous les agents yi nekk foofu contracteur contractuels CDI CDD si à base de loolu la ñu trouvé huit milliards ak lu teg ñu jox leen. ci deux mille vingt trois bi tamit ñu budgété waat la même chose mais dañoo gis ne ba léegi ñun jotuñu suñu xaalis léegi ñu ne comme syndicat yi taxawuñu ñun léegi tey gi léegi tey région yëpp Sénégal yëpp ñoo daje fi quatorze régions yi pour que ñu xeexal suñu bopp léegi pour que ñu mun a jot ñun eh, li nga xam ne ñun loolu la ñu war a jot. seen bile assemblée générale méngoo lool ak manifestation ci bërëb bii yile agent nag ñuy sàkku ci gouvernement bu senegal mu ñëw dimbali leen ci li ñuy sàkku boobu ba tey. ñu ngi interpellé le premier ministre monsieur Amadou Ba ndax soo bëggee réew mi euh, am am dal santé warul nekk ginnaaw ndax ku amul sante doo taam élection doo tañ ndaje ndax ñun ñoo fi nekk nag Covid 19 jaar na fi donc gars xeex nañu ba sonn donc moom la ñu interpellé mu jël dossier bi ndax ministère de la santé 2022 ba léegi dossier baa ngi fay traîner ay naxe mbaay rek moo fa nekk di la dig chaque chaque fois ñu dig la ngay xaar mais 2022 nag ku ko muñ ba 2023 jàmbaar nga muñ nga gars yi ay jàmbaar la de muñ nañ léegi nag dañoo sës dañu bugg loo mu gën a gaaw bala année bi di jeex gars yi ñu rappel leen seen xaalis ñu dugg seen fonds ñu soli seen blouse ndax ñun la ñu xam dem toppatoo suñuy malade ndax ñun ñëpp suñu jëriñ mooy toppatoo malade yi ñëpp ñibbi seen kër ci jàmm ak salaam loolu c'est le premier ministre Amadou Ba candidat à la présidentielle moom la ñuy yóbbul beneen bi su xamee ni foofu réglé le président de la République Macky Sall moo fi def lu kenn deful nag mhm. ndax c'est le seul gars yi yàgg nañu xeex depuis les indépendances ba léegi pour que ñu am indemnité de logement waaye kenn mosu koo def président yëpp jaar na fi nag waaw léegi moom moo ñëw yërëm nit ñi ndax dund bi dafa cher ak logement yi mu jegleen ñu suñu indemnité de logement yi bu mu koy jox amul xaaj ak seen il a bien dit c'est des instructions vidéo yaa ngi fii Ablaye Daouda Diallo ko wax c'est des nag defe naa boo joxee instruction en tant que président de la république am ku toog ministère am njabootam toog bind benn mail nangoo wax li nga wax mu nang koo appliqué kon war nga wax ak ñoom wala nga ñun contractuels yi nga recevoir ñu ñu tegal la affaire bi ba mu leer nañ nga xam yow liy yàq sa liggéey ndekete lii la ndax da ngay jagleel ñu benn affaire am ñu toog te du jàll yegg ci nit ñi loolu lañ bëggoon wax beneen beneen affaire bi dañ ko ci gërëm ndax 2016 ba léegi am na statut bu ñu defal nous les contractuels état public de santé. Mm. ndax booy liggéey nag il faut nga am statut. ñun duñu ay béy ay nit lañu. statut boobu nag dañu bëgg ñu appliquer ko. parce que moom moo bind en son article 50 le décret 404 2016 que est loolu nañ ko appliquer dès le 1er janvier 2017. Mm-hmm. ba tey ministère mi ngi toog kayit bi kenn xamul fu ñu ko dugal. Mm-hmm. loolu yëpp dañu bëgg mu lijjantil ñu ko mu recevoir ñu mu régler problème bi jàmm ne ñooy hôpitaux yi am jàmm ndax contractuels yi nag ñoo yor hôpitaux loolu su ko réglé wul su fooyee hôpital boo dugg les fonctionnaires on les compte des bouts du doigt ñëpp ay contractuels lañu des EPS te on a on est régi par un statut ñoom ñoo ko appliqué wul. le ministre de la santé moom la ñuy moom la ñuy euh, moom la ñuy interpellé directement pour mu wax ci lii nga xam ne moom moo xew ñun ñu xam lan la parce que mun ne dañu ne à travail égal mu ay nit mënuñoo bokk di relevante bokk benn liggéey toogandoo di liggéey nga nga daal di jël kii fay ko bàyyi ka ca loolu bu dee loolu mooy continuer ci réew ma xam ne ne hôpitaux yi dootul baax parce que nit ki buy xëy si xolam dafa war a sedd xolam dafa war a naat waaye boo ñëwee bokk ak yow nga bokk ak ngeen nekk juróom ngeen bokk ak benn nit ca foofu ngeen juróom ñi ngeen bokk benn liggéey di ko liggéey benn nit bi nekk étatique ñu fay ko moom bàyyi leen ñaa yaakaar naa ne juróom yee ñëw dootuñu ci sonnati dañ naan suñu yoon nekku ci boo xam ne notoire la discrimination la parce que loolu warul am lu ñu def nii warul am donc euh, ñu ngi woo le président de la république ak ak premier ministre pour que ñu xam ne xaalis bi nga xam ne génnee nañ ko ñu dugal ko santé nañu demaat saytu loolu parce que xaalis boobu ba léegi eggul ci agent de santé yi nga xam ne dañoo nekk dans les hôpitaux. donte seen bile xeex dinañu ko wëyal yile fajkat yaakaar nañu ne gouvernement bu Sénégal dina ñëw saafara seen i jafe-jafe wante dàquñu wëyal seen i plan d'action fileek amaguñu li ñu bëgg.